dal leen nag jàmm mbokk internet yi jàmmaarloo gi xew ci diggante Racky Aïdara ak Marie Louise daanaka jeexagul la ca dolleeku moo yaayu footballeur bi lee di Babacar Gueye àndul ci sëy bu naroon a dox ci diggante kilee di Babacar Gueye nekk ab footballeur ak kilee di Racky Aïdara diggante ñaari soxna yi di Racky Aïdara ak Marie Louise dëgg-dëgg lu jaaxal nit ñi la seen jàmmaarloo ñoom ñaar ci réseaux sociaux yi nekkoon na lu fës ba ku ne di ci waxtaan waaye ndekete yoo ka nekkoon ci suuf di ëpp ngir boyal furna ba dëgg-dëgg mooy ki nga xamante ne nii moom mooy Mame Diarra Gueye Gueye moom mi nga xamante ne mooy sëru Babacar Gueye mii lee nga xamante ne moo bëggoon na takk kilee di Racky Aïdara ñàkk a ànd gu mu ñàkk a ànd ci sëy bu nar a dox ci diggante frère am bilee di Babacar Gueye ak kile di Racky Aïdara moo tax ba kookulee di Mame Diarra Gueye daal di sennal yenn ci ay audio yu mu jotoon a am ci diggante kile di Marie Louise ak Racky Aïdara ñetti fan laata boobulee sëy di taxaw ndax moom moomulee di Diarra Gueye jàpp ne ne kile di Racky Aïdara ab jigéen buy taxawaalu la te jikkoom du jikko bu ñu naw moo ngi nii moom Racky Babacar Gueye bi nga xamante moo bëggoon diggante Racky Aïdara ak frère am suñu fàttalikoo mbir moomulee mu ngi jóge ko ci ab jàmmarloo ci benn waxtaan woo xamante ne kile di Marie Louise Diaw moom moo ko seqoon ak Racky dara ngir yàq sëy bu naroon ndox ci diggante ay Aïdara ak Babacar Gueye ndax ka moom Marie Louise mu ngi wax ne kooku lee di Racky Aïdara daanaka dafa nangu faram bile di Babacar Gueye ñu àndandoo waat déglu ci. À mon tournage. À mon Pas encore. il faut s'entraîner pour prendre le plat. <laughs> oui. ba ngi si jàmm. maa ngi si Louise. ban mari Louise. xamoo ban Marie Louise. Marie Diaw. waaw. ah ok ça va. yaa ngi si jàmm. cool ni. alhamdulilah euh, dañ maa woo léegi am wax yu ma wax yu ma jaaxal en venant de toi. waa parce que parce que da nga dem si Babacar Gueye. Hmm. ne ko que vite fait nga ma xam sama jikko neexu la baaxuma dañoo dem Thiès man ak yow bokk xaw ma hôtel ma nekk fa góor hmm. ak di wax yu dul jeex yu bari jarul may dugg ci détails yi. man xam nga ma ku ma lu ma waay def dama lay woo war ma fekk la sa kër lijjanti ko ak ku mënti doon ci àdduna dama ne lu ma waay wax wala lu ma def damay koy woo ñëw sa këram. yow danga ñëw nga ne sama fan nga da nga maa bëgg yàq saf. Mm-hmm. nga ñëw ma ubbi la samay porte robe ma jox la yére ma jox la nga sol ñooy ànd baali def lépp. Mm. non da may déglu ma déglu ma déglu ma déglu ma déglu ma déglu déglu ma ah, ah mosoo sol sama yére mosoo sama sama daal masuma sol sa yére masuma sol sa dàll du yor nga whatsapp su ma paree loolu dinaa la ko yónnee xëy na da nga fàtte déglu ma rek ba ma pare déglu ma pare ah. rek yi jël sama frère may la ko ngay génn ak moom muy Abdou Aw ah. ak yeneen ak yeneen ak yeneen yow tey yow yaay xëy ne man danga may yàq parce que man damaa bon moo tax nga bàyyi ma waaw après après après nga ne man dama bon man di wër di ma yàq si Babacar Gueye pour pour nax parce euh, que da nga bëgg mu tàkk la dimanche. Euh, Marie mu takk ma ak mu ñàkk maa takk ak lu mu mënti am loolu man aw ma benn compte ma lay rendre. non soxla ma nga rendre ma mais dama la ne beneen yoon a tee pour bu la naka dalee laa la wax de xam nga jàmm laa njëkk si laa mës a sëkk ak yow ma man soxla ma ku ma ragal mais man xam nga ma rek ay dara. man daw ma saala yaay ndeer fekk la sa kër googu noonu nga toog ak ku mënti doon ci àddina def lu ma fay def la mais dama la ne beneen yoon a tee nekk la ku la neex déglu ma déglu ma nekk la ku la neex ci àddina mais dama la ne dama la ne nga gérer li ngay gérer nga gérer te nga génne sa làmmiñ man sama tuur looloo tax ma woola ankay boo ko waxul woon du egsi si man euh, yaa amul ki la ko wax wala nangam ak sangam dama lay wax rek yow barki ki moon barki barki démb moon jaay téléphone boobu <clears throat> am na chance téléphone boobu ko may ba ma naroon ko a Cheikh Kouyaté ko may Zorob la di foog lañ demoon. waaw doo ma bàyyi. Zorob la mooy nii. ah. allo. allo oui. oui. dama ni man bu ma bëggee Babacar Dieye takk ma du ma du ma du ma ko du ma fi nekk di yàq deru kii Babacar li ma waxante ak moom moom xam na ko daf ma laaj dama lay fréquenté ma ne ko maag Marie-Louise fréquenté nañ benn at de temps ma ne ko ñu bàyyi ñu bàyyante ku nekk jël sa yoonu bopp. ma ne ko maag Marie-Louise du ñu wax parce que dafa dem Thiès fanaan ak sama far Ablaye Dieng comme xoon nga mais bu fi nekk di naan ay danga maa joxe yére ma sol man musuma sol sa yére. raki musuma sa dërëm musuma fanaan sa kër. raki te musoo ma présenté beneen bopp Abdou Aw te Abdou Aw laaj ko est-ce que maag moom mës nañu génn wala mës nañu def dara lu ñàkk fayda. waaw ok yaa may dégg. maa lay dégg. nga ne damaa dem France sa copain Ablaye Dieng. nga fanaan ndax moom moom loolu ma loolu ñëpp jot nañ ci. ah d' accord léegi baa léegi léegi d' accord naa lool léegi léegi déglu ma léegi nga ñëpp jot nañ ci d' accord loolu su ma paree Ablaye Dieng naa ko léegi yow dama lay laaj yow. yow est que ñëpp jot nañ ne que barki dem moo Ndiaye nga yàq biir ñëpp jot nañ ko téléphone boobu nga yor Cheikh Kouyaté moo la ko jox. ak ñëpp d'accord nañ que Seydina Seydina Seydina Laay moo lay jooyloo ba baa xam nga ne yow mariage bi du am baa xam nga loolu yow xamoo ci kan ngay dugg de bu nekkee pour pour pour sos pour no woote waan loolu nga kaa bàyyi mu ñu ko mu déglu. non doon tuuti ñoo ko déggandoo daanaka ki lee di mari Louise jaw daanaka moom dafa doon génn ak footballeur boobu lee di Babacar Gueye ñoom ñaar ànd nañ ci lu toll ci benn at ak genn wàll laata ñuy tàqalikoo ca ginnaaw sax ci la kii di mari Louise daal di tàmbali di continuer di déggante ak ñi nga xamante ne ni ñoom ñooy waa këru Babacar Gueye. ñetti fan laata ñuy daganal boobu diggante ci la Diarra géey di rakk ci footballeur bile di baaba kër géey dal di envoyé ab message kile di Marie-Louise ngir mu jox ko ay xibaar ci kile di ay dara rek ngir rek daanaka mu am ci loo xamante ni dina ko mën a permettre mu dal di yàq diggante boobule ndax àndu ci woon ñu àndandoo déglu sànnante kàddu bi xew ci diggante Marie-Louise moomulee ak kile di rakk Babacar Gueye di jaara Gueye ak sax yaayam joojule loolu moo taxoon. kii nu tudd Fat Jaara Gueye Jaara mère mère mi may dégg. mi xam nga tey jii. man dama xamul ku yooyu noonu. audio yooyu noonu. àdduna du yàggoon ba man Marie-Louise Diaw ma xam ne ëllëg dama war a am njaboot ëllëg dama war a am jëkkër may jël audio yooyu di ko yooyu noonu. à part Diarra Gueye mii nii yónneewu ma ko kenn à part yow yónneewu ma kenn kenn audio yi. Seydina Mouhamed ñu nga audio ma ko la nekk ku ma fa wala ma envoyé ko fa moo tax ma ne sama man sama téléphone kenn sama téléphone kenn du ko yor jaara sama téléphone kenn kenn yoru ko. parce que audio yi audio yi bu nekkee peut-être ngeen yónnee ko baab déglu ma peut-être audio déglu ma jaar audio yi peut-être ngeen jël ko yónnee ko Babacar après Babacar bëgg ko déglu Racky après soit peut-être Racky jël ko publier ko wala dara parce que ah kon xaw ma fu fi parce que man parce que jaar bi ma la woowee bi bi ma woowee bi ma ne Marie woom bébé wooma c'est c'est urgent ma woo la uh-huh. bi ma woowee nga expliqué na ma baaba ak Racky dañuy génn ñëw na fi sax si anniversaire baaba gi yëpp. ma ne ah bien nga ne ma nga ne expliqué ma benn yoon boobu dafa musi ñëw. yaa ngi dégg nga ne après nga expliqué ma ne ma meen moom dafa ñëw ne man baaxuma daf ma euh, bon dafa ma fréquenté la temps bi ma fréquenté tuuti mu gis ne baaxuma moo tax mu bàyyi ma. ba pare ba pare nee na danga nangu faram. yaa ngi dégg nangu far boobu noonu ma ne rakki man jiwuma ko lu tax mu dem di taxaw si Babacar bu bëggee Babacar takk ko. naw dem Babacar takk ko mais mais bu mu ñëw foofu noonu di yàq yéen sama diggante mm-hmm. sama diggante ak ak ak ak euh, ak yéen parce que bu dul dara yéen am na benn image bu ma bu ma leen won ba pare ndaxte man maa ngi dundu sama dundu ndax max Babacar bi ñu bàyyante léegi def na def na trois ans ci ren mm-hmm. Babacar dundu na fi am am na fi ay gel ñoom man tam maa ngi dund sama dund comme ni ma ko waree yaa ngi donc man tey jii bi ma woowee nga expliqué ma ne ma Racky loolu la wax que dafa ne ko dafa ma fréquenté laps de temps bi ma fréquenté que euh, dama nekk nit ku bon que dama nangu faram ma woo ma ne la yónnee ma numéro Racky man yoruma sax numéro Racky sax faf nga yónnee ma numéro Racky nga ne ma Babacar nee na nga woo euh, nga woo Racky nga enregistré ko pour mu gëm ne que yow yaa Racky xamante woon ngeen ak yooyu ma woo rakki bi ma woowee Racky ma enregistré ko ma ne ko Racky mu ne man ma laaj ko li ma koy laaj mu mu mu mu préciser wax ne dëgg la mu préciser ne dëgg la que euh, loolu noonu moom moo ko wax moom ak faram mu ne faram moo ko wax ma pare ma woowaat faram boobu ma wax ma ne ko yow maax yow dafa am lu ñu mës a séek wala dafa am maax yow lu ñu mës a def faram bi ne déedéet ma jël ñaari audio yooyu yónnee la ko whatsapp ne la déglul ko meer lo sama man dama doon setal sama der parce que man boo leen ma wowul woon di ma wax waxi Racky wala laaj ma waxi Racky àdduna du yàggoon ma ma wax waxu Racky wala ba ma ba ma ba ma ba ma kii waxu Racky donc instant bii nii maa ngi si position bu metti ndaxte sama famille ñu ngi dund lu metti ndax ñu ngi dégg saaga ñu ngi dégg ay lu nekk yaa ngi dégg te maa wax dama impuissant instant bii nii ndax xam lu tax maa wax parce que su ma wax bi su ma waxee fu mu commencé yéen di ngeen si impliqué wu parce que yéen a ma woo wax laaj ma affaire rakki wax ma waxu rakki boo tax boobu ba léegi waxuma ma préféré di dund li may dund pour pour rek coow bi bañ a éclater. Uh-huh. yaa ngi dégg te pourtant métti na torop démb yaay euh, bee fa may wax ak moom daf ma laaj ba xam yéen woote ngeen ma ne ko non uh-huh. yaa ngi dégg te yéen bi coow bi amee ba tey yéen suñu waroon njëkk woote ma saw si si la si laa war a bokk. xam nga man man coow bi man maa ko yëg bañ ko wax sama yaay xam nga moo tax. man yëgu moo ko def man a taxawal man dañoo wax ma ne sama yaay. ma ne ma ne Fatou Gueye sama yaay jëruñu koy wax dara sama yaay moom xamul coow li ma ne Fatou Gueye Marie moom waru woon dugal vocal bi man dama laa mere woon loolu laa wax Fatou Gueye. ma ne ko yow ma yónnee la yow vocal yow kese ma ne vocal yow bi ma la ko yónnee sa wat sa whatsapp mi ngi suñu discussion dama ko supprimer man vocal yi sax dama ko yor man sama téléphone man Marie Louise Diaw man jour bi ñu koy dugal ci ci réseaux sociaux yi déglu ma jour bi ñu koy dugal ci réseaux sociaux yi sama sama meilleure copie mi nga xamante ne grande sœur man moo ma ko yónnee Samira ne ma Marie dangaa dof li nga def ni noo ko mënee ma ne lan la mu ne ma sa audio yi nga xamante ne ñëpp nga koy yor réseaux sociaux yi nga ma ne ko lan ban audio mu ne ma sa audio yaax raki ma ne sama audio maax raki waa léegi man xamala la ma jaaxal nee naa la mari dugalul xaaral mari man xamala la ma jaaxal mari man nga waxuma waxu audio dinaa ci wax xam nga li ma la expliqué gis nga boo gisee ñu woo la la laaj parce que xamuñu woon kuy rakki yaa ngi man man waxuma la waxi laaj beeg yooyu ndax loolu loolu moom li am am na ba pare jaara géey parce que tey sa yaay bu ma woowee di ma laaj di ma laaj ba xam xam nga rakki naa ko ne xam naa ko voilà yaa ngi dégg normal Babacar xëy xaaral ma expliqué la ne dafay takk benn ndaw su sama yaay tamit mën naa ma jaar est-ce que mari mari war na ko xam laajte bi du dara dañoo laajte ñu woo la laaj la après xam ne ne bëgguma waxi teew loolu moo tax léegi nag bi ko ma ne ah yow moom ne nee na yow nga a doon nekk ba pare moom mu ne la bindu la noonu da wax mais man yaay ba yaay bee bi muy wax démb bi may laaj bi may laaj histoire bi ni mu fa demee. xam lu ma wax dégg ma yaay bee fa bi ñuy wax dem xam lu ma wax défendral sa bopp. ma ne ko maire mënu ma ko def déglu ma rek ma ne ko maire mënu ma ko def parce que jour boobu ngeen may woo dangeen ma woo maire mi ngi fa. ma ne ko maire maire maire moo woo jaar fa jaar daf ma woo ne ma allo xam paas sa maire dafa am lu mu lay laaj ñu woo ma laaj ke man pour man leneen nga ma ngeen ma doon ma ne ko man pour man sax leneen la bi ngeen ma wooyee ngeen laaj ma ngeen wax mag yëpp ma ne ko noonu la affaire demee looloo andi affaire affaire wax yëpp ngeen wax ma ne rakki dafa ne dafa xam Marie Louise laps de temps bi ma ko xamee dafa nangu sama far ci man affaire yooyu noonu ba ma nee la yónnee ma numéro rek parce que man yoruma numéro rek. nga ne nga ne ma enregistré ko et tout nga yónnee ko pour ma pour ko Babacar pour comme ça après gars yi comprendre euh, Babacar xam ne. loolu moom man maa ko man maa ko wax. voilà pour Babacar xam ne que yàq rek xamante ngeen que rek li muy wax du dëgg. jox ma numéro rek ma wax la wax la rek que genre la bokk jox ma numéro. man maa laaj sa baab man maa liggéey maa laaj ci ñu ne ko parce que boobu ñu ngi. yow yow moom fiñ la teg duñ ko dindi waaw ndax lu ne def nga ko xeet teraanga bu ne wax yàlla nag moom mooy soo doxali mbir yi waaw moom mooy tracé mosoo ñëw ci ñun ba ñu am benn kanam bu la won wala des trucs comme ça yoo xam nga ñu bu baax sax duñ la wax comprendre mère mhm. yaa may dégg waaw euh, instant yi ñëpp may tooñ di wax parce que xamuñu vraie raison bi. Mm-hmm. journaliste yeeg may woo ñëpp sama famille ñoo ne naa toog bañ a wax. Mm-hmm. parce que man dama xëy benn dimanche ngeen woo ma. Mm-hmm. ngeen expliqué ma laaj ma ba xam naa rek ma ne leen xam naa ko mu ne ngeen wax ma expliqué li ma yàq foofu noonu yëpp. bi ma wooyee Racky ma laaj ko ne ko yow da nga yow yaa dem si ñoom yaayu Babacar ne ko que man dama xaw ma couché copain am xaw ma lan. si la audio boobu amee bi ma pare ma woo gaañ bi mu wax loolu ñaar yépp dé déglu rek mère mais déglu doon ànd moom après euh, jikkoom neexuma ku ne aw sa yoon. boobu loolu jaara mi noonu di ma dégg jaara moo ma ne carrément dafa nekk yow da ngaa ne am sekk dara ko faram. jaara jaara jaara jaara wala xoolal tey bu situation am wala dara ngay change wax ci nax nga lan. Euh, loolu bu nekkee da ngeen ko changé tamit mën naa ko génne preuve yi ngi fi. Ah, ah, yéen a gën non danga déglu ba pare rek. yéen a gën a yéen a gën a tax man waxuma parce que coow bi damay bañ su ma waxee mu am tournoi bu nga xamante ne mooy loolu. xam nga sóoraale leen moo tax ba génnuma ba suma ma génnee di wax foog ma wax ne que jot naa leen ba wax ji fu mu commencé ba fin bi yéen a gën a tax génnuma ah, maa ngi toog dégg nekk. bi ngeen ma woowee un bon dimanche avant bien avant sëy bi ngeen expliquer ma affaire yi bi ngeen ma expliquer affaire yi ak rakki li mu ñëw foofu wax fa foofu si man si laa la jëlee yónnee la samay photo manax rakki ne la rakki yi ni sama kër la daan nekk la daan fanaan ak yëpp kon lu tax mu ñëw foofu naan xamuma ba pare wax ne que man dama nekkoon ak faram si laa jëlee woo rakki enregistré ko Uh-huh. ba ma paree ma woo faram boobu mu ne ma moo wax ne maaxum bi ñuy génn ma enregistré ko uh-huh. ma jël ñaari enregistrement yooyu yónnee la ko ne dama bëggoon mu uh-huh. leer dong sama der dong laa doon setal yaa ngi dégg ma ne la Racky xam na si xam na ne que maax Babacar dañ doon génn mais Babacar xamul woon xamul woon Racky ci man lii laa wax non bi ma woowee ah. voilà non dama bëggoon non amuma dama bëggoon wax ji rek mu leer yéen a gën a tax man génnuma waxuma. waa léegi xaaral expliqué la xam nga man ba tey waxuma la sa rak moo fi man mari aw ma dara lu may daw man bañ na ko yàlla xam na ne bëgguma saa yu waxi sew lu ma wax dama naan maa ko wax. mari rak yi mosu fee ñëw sax di wax benn jour dafi ñëw mooy anniversaire Babacar Babacar moo ko fi indi yaa ngi dégg mosu ñëw wax fi dara ñun dañoo dégg ay waxi sew mais c'est normal man ma jël sama téléphone ma wala ne la rak Euh, Marie xam nga rakk yi nga ne ma rakk yi man sama rakk yi ma ne la waa nga ne ma xam naa ko ma ne la ah moom de la Babacar di génnal te Babacar nee na da koy takk loo ci xam. avant ngeen may wax takk bi avant nga may wax takk bi. waaw xaaral mhm. ma expliqué bi ma woowee waxoo ma sax waxu takk bi. waaw xanaa xam rek waxu la que ne ay genre lan lay say appartement genre ma ne ah Marie sama yaay ne la taa bi de garaaw la ñun daawu tam ñu ngi takk koo xam ne deux mois la ko xam xamaguñ xamaguñ ko comprendre nga après man man dégg naa ay wax yu xew ñu ne que euh, après euh, nu mu tudd sax euh, nu mu tudd sa xarit bi Idi Idi moo gis Babacar ne ko que Marie est-ce que xam nga ne rek an Marie dañuy ànd. joo jàpp lool dem ba ci rakki ne ko rakki mari bi euh, yaag mari yi da ngeen xamante mu ne ko mari xamante ne ñu ni abse de temps après nangam nangam jukkoom nekkuma après ma ku nekk jël sa yoonu bopp man maa la wax loolu après nga ne après yow nga ne man ah rakki loolu la wax te man baax ma nangam ma ne ah rakki de loolu la wax waaw wax dëgg yàlla. yàlla yàlla rek moo tax may wax musuma la nee mari. jaara jaara jaara jaara jaara danga yow boo mu wowul woon wax ma ne ma ko rakki neen dafa da nga nekk ak faram ak hôtel man loolu naka laa koy xamee kan moo may woo man kan moo may woo wala wax ma dara non dama leen di wax rek tey ji waxuma dég déglu ma rek tey waxuma tey xam naa fi ngeen position bi ngeen parce que da ngeen ragal ëllëg ma génn wax ne lii wala lii noonu ma rek non déglu ma rek jaara ngir su fekkoon damay génn déglu ma da may déglu damay déglu kii maire nga baal ma de instant bi nii aw ma lu ma neex maire yow yaayu Babacar nga yaayu Jaara nga yaayu faatu Gueye nga xam nga lu tax danga am ñaari doom yu jigéen man maa ngi nii man suba dama war a ami doom suba dama war a ami njaboot suba suba damay am jëkkër sama yaay xam naa ne day jéem a essayer nekk forte pour réconforter ma mais xam naa ne fi mu toll nii nii dund gu muy dund dee ko gën a ndax li muy dégg ñu wax ci doomam te mënuñu défendre ndax xam lu tax ndax yéen laa ciy sóoraale ndax sinon man mënoon naa génn défendre ndax yor naa assez de preuve yu nga xamante ne bi jour bi ngeen ma woowee bi ñu expliqué ak yëpp da fekk yow jaar bi ngeen ma woowee jour boobu noonu yaa meer ngeen expliqué ma dafa wax ne xamuma nangam ak sangam. ba bi ñuy waxee yëpp ba nga ba nga waxee ma affaire nee na dafa la mës a euh, faram xaw ma lan hôtel xaw ma lan. si laala ne déglu ma rek jaara. si laala ne man sax numéro rek yoratuma ko nga ne ma yor naa ko xaama yónni la ko nga ne ma. nee na pour am preuve que raax rek xamante woon xamoon xamante ngeen war rek yi. yaa ngi dégg war rek yi. nga nga nga ko après nga yónnee ñu ko. bi bu nekkee ko man yàlla bu nekkee waxoo ko nag rek. Eh, ja Fatou Diarra eh, Gueye. man lu ma wax xoola man lu ma wax dama naa la maa ko wax loolu man maa ko wax Babacar yaa ngi dégg. ok dama bëgg mu leer rek Babacar euh, ko pour wan ne la que rakki du ci genre boobu est ce que est ce que war na war nga ko takk wala waroo ko a ci boppam moo ma ne waa Marie na def loolu. kese yaa ngi koy dégg. Mm-hmm. man fàttaliku naa yàlla rek moo tax wax fàttaliku naa dëgg la. parce que nee naa ba tey même bu dee rag fan mais noonu ma bëggoon wax ji rek mu leer. non non man dama bëggoon rek jaara jaara jaara Gueye jaara ma rek xaar jaara déglu ma rek man dama bëggoon wax ji rek mu leer que man yéen a man tey ji boo leen xëyul woon woo ma wax ma wax ma ne ma mari xam nga rek day génn ak moom si saa si déglu ma rek ci saa si waxoo ma sax euh, Babacar takk rek. ya yaa ngi dégg da ngeen ma ne day génn ak moom non non takk bi waxu takk bi ñëwagul woon déglu ma rek da ma ne Racky dafa ñëw fii si Babacar ne que yow xamula la vite la la xam sa jikko neexu ko ba pare da nga génn ak copain wam ma ne ko ma ne la copain nga ne ma ma ne la man Racky man yoratuma sax numéro ba ba ba ba muy wax ne man damay génn ak copain wam Racky man jàmm ak salaam la ñu sama kër a daan fanaan ak du li laa la wax yàlla rek moo tax may wax barki Seydina Mouhamed néew ma la da ngay génn ak ko payam xam nga laa la wax gis nga Marie man sama yaay woowu la. non waxal waa waxal waxoon da ngay génn ak ko payam loo ma wax. Hmm. man li nga expliqué sama xel dem na ci man nee naa la te nee na yow da nga nangu faram. voilà loolu laa la ba tey même chose da de dama nangu faram wala daal ma dama lay laaj rek non non wax ji dama bëggoon mu leer parce que. xam nga tey su ma su ma génnul. jaara jaaro ci wàññi sew wax bu sew loolu moom man yow da ngaa bon loolu gépp d'accord kenn waxu fi kenn dafa bon wala damay ma lay wax rek damay wax rek ne tey jii nii tey jii nii ñëpp ñëpp ak ma naan ñëpp ñëpp ak ma naan déglu ma rek ñëpp ak ma naan naa génn wax c'est sama der wala naa lii wala naa lee boobu ba léegi génnu ma waxuma li tax ma gën a gi bañ a génn bañ a wax parce que su fekkee dama war a commencé histoire bi fu mu war a commencé ay coow dina am. est yaa ngi dégg. parce que tey suñu commencé dina dinaa suñu fekkoon dama demoon ba bañ may wax ci presse bi dinaa leen ne carrément man dam jaar moo ma ne bébé tué laa woo ma dama la soxla. si laa la woowee bi ma la woowee nga ne ma ba xam da nga xam ku tudd Racky ma ne la ma ne ban rakki nga ne ma rakki Aïda ma rakki Aïda sama rakki la kay rakki bu mu ñëwee fii daanaka ci ñu ko dalal ci laa bokk ma ne la safa ko andi sama kër présenté ma ko ne ma rakki dama bëgg nga jàppee ko comme sa doom bi nga euh, euh, bi nga jur nga jàppale ko ma ne la ne loolu laa wax wala déet léegi après bi ma kiiwee bi ma bi ma xamante ne moom dafi doon nekk di fi fanaan di sol sama yére ñu ànd génn dem resto génn dem euh, baa léegi lépp lépp lañ doon def mais un bon jour dañu yëg saay rek ku nekk àdduna day dox ku nekk da ngay dox dem sa chemin ma ne la mais lu tax mu ñëw foofu naan leen xamuma ba pare di wax ne que man sama jikko neexu ko ak yooyu noonu ma yónnee la samay photo ma ak rek ak vidéo ma ne la rakki Babacar dafa bëgg tàkk rakki dafa bëgg tàkk rakki na ko takk mais l' essentiel Racky bu mu ñëw foofu di yàq sama der ci yéen nax bu dul dara yéen am ngeen estime bu bi ngeen am ci man ba pare. kon bu mu ñëw foofu naan mari baaxul moo tax ma fréquenté tuuti ma bàyyi ko ma yónnee samay photo manax Racky ak vidéo manax Racky yaa ngi dégg ma ne Racky nag xamoon na ne que man ak Babacar dañ doon génn ak yépp ah, ah, yaa ngi dégg voilà xam na xamoon na ko. mais mais Babacar xamu ko woon. te loolu laaj nañ ko ko laajoon nañ ko mu ne mu ne moom musul xam loolu. am na ko xaaral ma loolu xam nga laa bëgg Marie comprendre Marie boo gisee ma woo la di la laaj dañoo toog fii ñu ne Babacar mi ngi bëgg a takk rakki te ñun xamuñu kan mooy rakki. comprendre moo tax ñu woo la di la laaj sama yaay sama yaay moo jaara. boo woowee Marie Marie dina xam xëy na rakki. yow rek tax dañu woo de. déedéet woo nañu Rama. woo nañu Rama woo nañu ay nit di la laaj. woo ah, ah, woo yónnee naa sa doute pour kii joué kooku film. pour mu laaj. mu laaj du yow rek la ñu woo sax woo nañu am na ñu ah, nangam nangam parce que dañuy mari nit ki boo amee mag wala nga am muy muy dugg fenn pour soxna. xamuñu ko même pas deux mois mu ne dafay